chers internautes ñu ngi leen di nuyu di leen dalal ci seen site préféré donc tey ñu ngi dalal euh, Ousmane euh, Noël Dieng euh, ñëpp xam ko ak Kaolack Ousmane ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay mon frère di nuyu mbokki internet yëpp d'abord di nuyu Sénégal yi di si jiital kilifa diine yi nga xam ne ñooy suñu sakk di suñu lépp. rawatina di nuyu son excellence monsieur le président de la république Macky Sall di ko ñaan yàlla yàlla naan jàmm. Euh, di ci teg euh, suma mentor monsieur le ministre Diène fa Sarr euh, Ousmane Noël la chef de cabinet du ministre Diène Farba Sarr à la DGPU en même temps le président du mouvement MJK DF2S mouvement des jeunes de Kaolack derrière Diène Farba Sarr c'est ça. ok donc euh, démb ñu ngi clôturer liste yi donc candidats yi au fait euh, déposé nañ seen liste démb donc c'est vrai que aussi ñu bëri ñu ngi doon euh, yaakaar ñu prolonger un peu délai bi c'est vrai que aussi c'était un peu serré. donc ban jàngat ngeen ci mën a andil avant dugg si vif sujet. si élection waaw xam nga moom lu lu ñor tàbbi. waaw lu ñor tàbbi donc mbir mi jot na élection yi dafa jot ba ñu déposé liste yëpp. il est temps ñu def ko ku ne xam fooy féetee ñu jàll ci leneen parce que Sénégal loolu laaj ko Sénégal dafa soxla euh, développement Sénégal dafa soxla ñu liggéey ko Sénégal dafa soxla franchement euh, gars yi nekk ci ci ci ci liggéey bi kon duñ jël topp ci benn élection rek di ko reporter di reporter ay délais chaque jour ko jëfee mu ñuy tàddal donc man je trouve ça c'est très normal. franchement ñu def lu ñu def après jàll ci leneen quoi. ok euh, gis nañ aussi coow bëri woon ci confection liste yi donc euh, c' est que aussi président waxoon na ni gars yi xaar euh, un peu euh, mu joxe décision ci ci loolu gis nañ ñu bëri ñu ngi doon fësal seen ambition yow ci nga bokkoon ak Kaolack aussi donc gis nañu aussi choix yi ñuy président def neexul ñu bëri. donc muy Kaolack muy Dakar muy feneen ak feneen ba gis nañ ci ñu bëri def ay liste parallèle donc concernant un peu Kaolack naka nga jàngatee un peu situation surtout situation bu tendue bi fa am. d' abord man damay sant yàlla parce que magam waxoon naa ko. moo gën magom xamoon naa ko moo tax may sant yàlla bu baax xam nga boo gisee mbir muy ñëw nga teel cee wax ba gis mbir mi so jee sottee noonu moo tax euh, dañuy sàkku rek ci son excellence monsieur le président de la république muy bàyyi xel di bàyyi nopp parce que am na ñu ko bëgg am na ñoo xam ne dañ ko topp bëgg ko gëm projet am gëm li muy def dama bëgg rek euh, muy bàyyi xel la jeunesse muy bàyyi xel ñi nga xam ne yàlla def na ñu rafet xel mun nañu bàyyi xel ba bu ñuy wax ak moom muy déglu xam nga élection présidentielle c'est pour lui moom la ñëpp di jàppale moom la ñëpp di fal waaye problème bi commencé wul tey mon frère problème bi dafa commencé depuis très longtemps depuis ba cëmbaxoo amee ma ko yuuxu naan cëmbaxoo yi am ci région yi c'est du n'importe quoi ba un jour viendra dina solo président cëmbaxoo yi mooy lan da ngay da président Macky Sall day fal kenn def ko euh, wax dëgg yàlla bu nekk coordinateur ci ci région bi yëpp ñu dem ba ci yàgg nga gis kenn tëllee fële ci langue yi ñëw du to loolu mu topp kooku noonu parce que discipline parti dafa am ah dañoo war a respecter hiérarchie bi dañoo war a respecter kii président teg fii nga xam ne moom mooy njiit bi ñu respecté loolee mais dañu gis ku mel ni Kaolack Kaolack laa gën a mën a wax parce que mu ngi fépp nag moo indi anarchie bi yëpp mais dañu gis ku mel ni Kaolack ñu fal fa diw ku mel ni Diène Farba Sarr mu créé parti bi defar lépp indi parti bi ñëpp war koo topp mu doon koo xam ne sax bëriwul ambition lu bëgg rek mooy jàmm lu mu bëgg mooy président Macky Sall am ndam lu mu bëgg franchement mooy lépp tegu ci yoon looloo gën a loo gis yaa ngi dégg nga gis ñu fël la ci parti bi soo ñëwee loolu def mooy topp ci ginnaaw Diène ba Sarr na ko dañu bëgg ñu def unité liggéey ensemble boobaa da coow du am mais su fekkee da nga ñëw teggi Diène ba def lu la neex xëcc sa bopp jiitu réew mi bu waxul kenn waxul keneen ñëw def noonu am na si kenn waxul ah keneen ñëw def noonu Tamba def ko Thiès kenn waxul après bu yàggee ñëppay am ambition anarchie lay doon quoi. anarchie lay doon léegi nag booba dina ko dina ko arrangé boobu parce que boobu ah day bàyyi ñëpp ca mboqoo parce que ñëpp dañu dañu dañu ku nekk day jéem a wane sa bopp pour liggéey pour faral président Macky Sall waaye bu ñu demee nag ba mu doon local local c' est local. local c' est bien dit gis ngeen turam local localité fa lañ dëkk ñun local c' est local ku ci nekk da nga am ambition ne fii kat damay xëcc sama bopp parce que lu ko indi mooy mooy lañ bàyyi woon naan euh, sëy la ko tas. nii woon na sa njëlbéet dañ koo fayul. comme le fait que par exemple Diène Farba il était le coordonnateur à Kaolack donc euh, li nga ko fa teggi est-ce que si sa xalaat comme ça veut dire que ni dama gisul sax man euh, benn papier bu ñu wan ne Diène Farba Sarr nekkatul coordonnateur bi gisuma ko loolu mooy tooñ loolu mooy franchement euh, yabaate loolu mooy franchement kenn xamul lan la parce que du président moo ñu ko wax président mi ko faloon du moo moon moo ne ko fooli naa la nekkatoo coordonnateur. du kenn moo ñu ko wax lu dul ay lobbying rek ñu dajale ay lobbying kii yaa ma neex ñu jël benn nit boo xam ne lobbying nañ ba yaama neex ñu toog ba si ak Diène Farba mi créé parti nga xam ne ba mu koy créé L200 la indi jaay ay kartam APR kenn xamul APR ñëw samp biir Kaolack de fu ki Sall dem ci biir Kaolack wala diwaanu Saloum Diène Farba moo ko fi yóbbu Macky Sall moo créé Kaffrine moo créé euh, Ngathie moo créé fu ne ci Kaolack créé biir Kaolack créé fépp. maanaam fu Macky Sall dem rek responsable bu mu dem rek jën Farba Sall moom bu fa yóbbu waaye loolu duñ respecté kooku noonu ku nga xam ne bu taxuloon moom parti bi du installé wu biir Kaolack doo ko jox ci respecté ko ah ba pare mag la ba pare ëpp la xam-xam ah yéen ñëpp ñu xam ne képp ku nekk Kaolack di politique nekk fa doon leader yoo xam nga ne jël Farba Sarr moo la xam-xam xam nga ne moo moo la gën a légitime xam nga ne moo la la <laughs> fi def defoo ko fi. mais est-ce que aussi du njële dafa gis ni xëy na euh, war nañ fa mën a gën am mbooloo ak euh, waaw xam nga ne ku wax mbooloo <laughs> doo doo doo boo jéggi Ousmane Noël franchement ba ngay wax lu la neex rek yoo xam nga ne Diène Farba ci boppam. te xam nga Diène Farba Diène Farba maanaam le président Macky Sall dafa desul dara président Macky Sall daf ko jàppale avant mu nekk président de la République jàppale ko ci xeex jàppale ko ci opposition jàppale ko ci biir APR jàppale ko ba ba fam ne ba ba mu ne mënatul moom. mu nekk ci administration créer un un jeune à son image mu continuer di ko jàppale kenn su ko def ci àdduna. kenn musu ko yow la porté woon yow. mais bien sûr ma mais man sa Diène Diène c'est moi Ousmane Noël moo créé Diène euh, euh, Diène moo créé Ousmane Noël sans Diène Ousmane Noël n'est rien du tout moo ma créé moo ma jàngal politique moo xam ne ñu defee lépp lu ma mën c'est Diène Farba et donc man kan laay liggéeyal far Farba kii di Diène Farba di di le président Macky Sall. parce que def na man si Macky Sall euh, comment dirais-je nan la ko s'efface moi je m'efface noonu la ko waxee à chaque fois def ne aw ma benn ambition lu jàmm si Macky Sall s'efface moi je m'efface. mais la jëlee loolu noonu euh, du ko neex franchement je vous dis la vérité pour dire la vérité rek loolu mun te neex jën waaye nag sa jur ko jëfee yàlla dogal benn mbir boo xam ne du la neex te da koy gëm fii kan la yàlla reyul yaayam ku yàlla reyul baayam est-ce que neex na ko. waaye da ngay muñ inna laa maa saabirina yàlla maa ngi ànd ak aji muñ kat yi dara dina ñëw du la neex nga muñ ko waaye nag neexul kenn xam nga tey ku sañoon tey li nga créé Diène Farba dafa dafa dafa jur APR daf ko jur li nga créé moom ko ba pare créé un jeune mu liggéey liggéey boo xam ne moo fu ëpp mbooloo mbooloo mu am Kaolack yépp ci Diène Farba créé lépp ñu ñu toog si ay lobbying ñu xam lobbying yi xam ne ñëpp nag xam nañ mun naa la limal lobby mais c'est du c'est pas le moment un un un jour viendra incha allah rabbi lépp dinañ ko wax teg ko ci taw taal gën a leer ay lobbying yoo xam ne dañuy parce que Diène Farba arrangé wu leen parce que Diène Farba il te joxe marché yu nangam nangam parce que Diène Farba amul xaalis bu muy pasar pasare parce que Diène Farba loolu Diène Farba lu mu xam mooy liggéey intellectuellement yow loolu bu la nga ne xaañu lobbying ko fexe bu ñu jëlee ko fi bu ñu ko fi jëlee ne kii moo ñu arrangé ki nga xam ne moom gaaw na ki nga ñu lobin ko rek ba teggi ko foofu noonu euh, nekk nekkatu ko ndax def nanga nanga waaye moom mu ànd ak yàlla ànd ànd ak président nag ànd ngor doon mun a wax yaa baax bind livre depuis 2011 un combat pour la république nekk di nga président abandonné ay poste poste de direction bi nga xam ne 2 millions lañ lay fay direct euh, fene DAGE ministère de la santé nga dem toogi Fatick sans salaire sans salaire nga toog Fatick euh, président Macky Sall jox ko kudd mu bañ ne ko damay toog primature ak yow pour génne chantier yi yëpp mu def ko yëpp mu créé ko ñu ko si yàgg la nga ci ay li nga li nga retrouvé ñu ay lobbying ñoo xam ne ay ñoo xam ne sa démb parti kenn xamuloo noonu léegi ñoo la ëpp doole dina ko métti waaye nag lu mu ko métti métti daf koy muñ daf koy muñ parce que da si seet président Macky Sall président Macky xaritam la nitam la da koy da koy sóor parce que mbir bi du président Macky a kese am na yoo xam dañ koy def mu na sa ko yëg mais président Macky Sall dafa respecté Diène dafa fonk Diène daf ko bëgg ñoom ñaar bu ñu dajee see nga xam ne li coxel la. Eh, mais ay jeunes euh, yi rangé wu sa ginnaaw euh, di dénoncer loolu. donc euh, yow lan lan mooy ci sa xalaat par rapport xam nga des fois cofeel mbëggeel dafa doy waar xam nga ñun dañoo ñëw dugg Kaolack dañu def politique. politique sociale politique sociale kii di sociale di développement gars yi yàlla suñu borom bi dina tëwul barkeel loolu jël ñoo dugal ñu si xolu jaamu yàlla yi xam nga bari le barkeel ko gën gars yi ñoo ñu ëpp xaalis c'est des multimilliardaires gars yi ñoo ñu ëpp ay oto yu rafet waaye ñun sympathie lañ dem jéem a gagné boo ñu indilee ordonnance su 100000 ñu fexe waxtaan ak yow ba sa xel dal ñu yëkkati ñaar dërëm jox la nga fax fi ñëw bëgg nag benn yoon. loolu lañ créer ci jaamu yàlla yi loolu lañ créer ci ci franchement ci ci ci ci la population kaolackoise ba nga xam ne gëmewuñ dañu bëgg ba lu ñu gisee dañuy fat-fati léegi nag bu ñu amee lu leen metti tàgguwuñ ma dañoo génn nañoo nanguñ loolu waaye man li ma leen ñaan ñoom ñëpp moo ñu dal ñu dal parce que man mii di wax ak ñoom à chaque fois que jëfee kenn mënul taxe pexe ba du ma participer ci développement wu Kaolack parce que man je suis un Kaolackois et fier de l'être 100 pour cent Kaolackois du ma jolof jolof du ma baana baana du dara quand 100 pour yaa ngi dégg donc ñu fi nekk yëpp di xëccoo kii mën naam sax am na lu ñu rax am na lu ñu rax waaye man 100 pour cent Kaolackois laa maam ba ci man et donc euh, lii euh, maanaam nekk tête de wala nekk maire woo wala nekk député woo wala ñàkk koo nekk laa yemale du tee non non du du tee ma participer si développement Kaolack. Euh, non président. Euh, président gis daje nañ. Euh, ba ñuy inauguré fee jam ñaajo hôpital bi daje nañ am na li ma wax ne ma déglu ko luy respect mooy nga déglu ko jox ko cër. waaw man nag yàqamtiwuma dara dinaa ko déglu dama koy déglu parce que moo ne ma Ousmane déglu ma dinaa la woo dinaa la woo la luy cër. ak luy respect mooy mooy njiiti réew mi moom la yàlla dénk réew mi moo suñu patron ko dama koy déglu waaye nag ah li ma yor liggéey ko 6 ans li man xajuma ci gannaaw kenn déedéet xajuma ci gannaaw kenn léegi naa ko déglu nag bu ñu xool lu ñuy waxtaanee ci intérêt Kaolack ak ak ak ak ak sax kenn xamul lu may may naa ko déglu waaye li ma yor man mbooloo mi ma yor balaa may dem di du ma du ma dem di wasaare sama mbopp moom séega li may def nag politique la tudd te politique. dama am ay nawle am sama militant munuma te am na yoo xam ne nag su ma ko defee mooy ñàkk naa sama mbooloo ñàkk naa sama militant waaye nag moom mi nga xam ne nag ah moom mooy ndey mbi gi mi nga xam ne moom lañ dem liggéeyal bu ñu ooyee ñu waxtaan ci développement Kaolack ba ñoom ñëpp xam nañ ne président ono ba waxtaan nañ ci développement Kaolack ba xam nañu war a fi war yoon bu ñu war a jaar ah ñu jaar ci yoon boobu leen aussi mm. parce que c'est vrai que c'est trop tard aussi liste que amu leen aussi intention créer liste parallèle comme ni ko mosuñu am intention bu xam lu tax parce que poste de responsabilité léewuñu ak ak président Macky Sall comme ni ma damay ñëwaat rek revenir poste de responsabilité bi ñu léewoon ak président Macky kon du jox Diène Farba Sarr kudd mën na ko bàyyi madame toog fii ci ci ci primature ah di liggéeyal poste de responsabilité bi ñu léewoon man dinaa ko bind nag président recevoir ma mosuma ko bind nag recevoir ma na taabalam musul gis lettre Ousmane Noël nag président recevoir ma pourtant il a reçu pas mal de jeunes wala pas mal de responsables ak Kaolack recevoir na leen te maa leen mën fuuf li ma liggéey ci parti bi liggéeyuñ ko pourtant nomee na ay ñoo xam ne maa leen maa maa maa leen mën fuuf li ma liggéey ci parti bi liggéeyuñ ko waaye man euh, poste de responsabilité wala mu nomee ma taxul ma koy liggéeyal dama gëm projet am man dama gëm projet président Macky Sall dama gëm ne c'est le meilleur président de la République de tous les temps depuis 1960 c'est le meilleur président de la République dama gëm ne lépp lu ab lu Abdou Diouf ab Abdoulaye Wade def ko ah Senghor def ko moom ba mu ñëwee def ko quadruplé dama gëm loolu ma gëm projet am gëm ne incha allahu rabbi bi ñu ko yoxee bopp mun nañu yóbbu fu fu sori moo tax ma ko accompagner léegi nag leneen la ci am nag wërsëg la wërsëg yàllaa ko yor lu ma ci am ci biir dama koy sante saa borom jël ko nag bokkookat bokkookat sénégalais yi ak sama ñàkk ak liggéey waaye waaye taxul ne su ma amul poste de responsabilité damay sànni xeer wala damay def nañ waaye nag dinaa dinaa préserver sama personnalité sama dignité sama respectabilité ak mbooloo bi ma yor bañ leen asaaloo wasa bombe di gën jàlloo ci gën ginnaaw yoo xam ne xamaguma ko moo tax je préfère attendre. mais ci loolu naka nga jàngatee ko ñu créé seen liste parallèle donc euh, comme euh, gis nañ le cas Kolda Dakar fii ak feneen euh, a wax ay tur. li ma waxoon rek parce que énergie bi dafa am bu yàgg. c'est que Sall dafa bàyyi président Macky Sall dafa bàyyi trop de sa ale ba pare ba léegi mu bëgg koo indi du dindi non no non dañ ne. nga jàpp ni il naka laa koy waxee sax mënu ko leen contenir quoi. non parce que xam nga président Macky Sall ku am doole foofu Kolda ñi ngi tudd Kolda ñu ngi tudd feneen képp ku fa am doole président Macky Sall moo la jox doole. képp ku fa am poste de responsabilité Macky président Macky Sall moo la ko jox nekkuñu woon dara. mënuñu woon dara amuñu woon dara am nañ da boo boo arriéré boo defee arrière tuuti rek nga arrière ay ay ay ay ay ay ay ay ay cinq an six ans si ginnaaw wala sept ans boo leen waxoon dem leen jël Kolda duñ ko jël parce que kenn xamul leen te mënuñ ko comme président Macky Sall moo leen dooleel léegi nag doole jum leen dooleel nag depuis le début daf la waxoon na ne eh c'est moi le chef kii laa mooy mooy coordonnateur département nañ ko topp. affaire parti bi am hiérarchie. mu topp waxoon na leen ma ba mais malgré loolu gars yi ñu ngi mooy li ma la wax mooy mooy mooy mooy mooy déglu leen parce que daf leen bàyyi de trop bañ am doole daf leen bàyyi de leen may dafa ëpp de trop ba mu bàyyi nag ba élection locale yi ku ba ku ne am ambition mu bëgg déglu leen moo waral anarchie bi yëpp am ku ci nekk taal mais ñun nag comme ñun ñun ah, dañoo ànd ak mu ànd ngor comme ñun Diène Farba mooy man maay moom dañoo ànd ak moom ñu ngi subir yi. ñuy subir affaire yi depuis le début nag lépp lu métti ñun lay dal ñun la ñu xeex ñun la ñuy lobbiñ ñun la ñuy def lépp waaye ñu ngi ànd ak dal rek ànd ak yàlla ndaxte yàlla moo fi nekk yàlla rek fi nekk ñu ngi ànd yàlla nekk ci ginnaaw yàlla di ko jàppale rek di ko wane ngor duñ ko sànni xeer mën nañ ko de di ko gaa defee mën nañ ko de génn ay sànni xeer ay yuuxu ay saaga ñun duñ ko def parce que ñun on est très bien éduqué te yàlla lañ yaakaar yaakaaruñ kenn ku dul yàlla suñu borom duñu mën a mën nañ génn di wili pandé wala génn di wax defuma lii mais duñ ko def ñu dañu ànd ak yàlla déglu ko moom mi comme def leen déglu leen ma Ousmane monsieur le président Macky Sall ñu lay déglu. donc euh, pour ñu génn un beneen cas ma concernant un peu déclaration ndax xaw ma déglu naa na que ni euh, élection yi ñu jublu nii day na déterminer euh, troisième mandat wu président Macky donc naka nga analyser waxam boobu. waaw xam nga loolu bon Mahmoud Saleh dafa jiitu rek parce que président Macky Sall wax na ne li mu bëgg def kenn xamu ko kon loolu Mahmoud Saleh la concerné. man pour moom la concerné et donc euh, président Macky Sall même bu dee élection Sénégalais bu ñu ko bëggoon fal cent ans ku ay élection moo tax ñu koy fal cent ans lu ko ñu bëggee fal cent ans liggéey moo koy fal liggéey bu mu fi def ak franchement bilan moo koy falaat wala moo koy def yeneen nanga-nanga et donc président comme di waxut ci benn yoon troisième mandat bëgg naa ko def kenn déggul ci làmmiñ kenn déggul ci làmmiñam mu bëgg naa def ay troisième mandat ak ay nangam mais lu lu Mamour Sall wax moom franchement moom la concerné parce que maamu Sall la mais dégguma ko ci waxu président de la République kon du ay wax yoo xam la jarul sax. waaw mais loolu mënoo ci xam nga xam nga loolu mooy li ñu koy lankam di sa seen ba xam nga waxee noonu <laughs> ah, donc mënoo wax géntu jàmbur nettali sa gént nettali géntu jàmbur. mu munoo munoo munoo wax. lu lu lu lu président boo xam ne président fekkee woo ko ndax est ce que réeroo na wala réeroo ci mun naa Mamour Saleh moo génn wax waxam rek mais est ce que président Macky moo ko wax président Macky Sall lu mu waxul nag ne fu mu waxee ne ay troisième mandat la wax te bu ci kenn wax moo tax ñun loolu ku mu concerné mooy Mamour Saleh loolu concerné concerné président Macky Sall bu ma déggoon Macky président Macky wax ci nag dinañ xool ndax dañ ko dinañ ko ci ànd ak moom wala ñu ci ànd ak moom loolu nag dañ koy xaar ba mu wax ok donc pour euh, ñu ngi si jeexantal émission bi ñu dugg peut-être ñu jeexal émission bi te waxuñu ce qui s'est passé un peu à Ziguinchor donc euh, on convoque Sonko bi dañ ko attaqué Euh, au niveau de l' aéroport donc après loolu mu ñibbisee si diggante bi convoi bi convoi bi bi muy ñibbisi aussi gis nañ ci mu def accident. bu mu am ci euh, quelques morts aussi donc euh, situation boobu à Ziguinchor surtout naka nga ko jàng. en franchement lu lu lu lu ñu métti la d' abord di jàll ñu ci génn àdduna je pense que kenn ki mu ngi tudd Ibrahima Fall kenn ki mu ngi tudd l' autre gars là yal na yàlla yërëm leen du ko jàll aussi Ousmane Sonko. du ko jaal waa Pastef yëpp ñëpp du ko jaal ñu ñëpp wax dëgg yàlla ndaxte ñu ñëpp ñoo bokk Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar ñu ngi leen koy jaal di ñaan yàlla yàlla yërëm leen yàlla jéggal leen yàlla tàbbal leen àjjana firdaw ci barki yonent yàlla Muhammad et donc euh, euh, lu situation boobu li may wax rek la chaque jour chaque instant damay revenir rek ca la amoon ne euh, politique politique du animosité xam nga politique du xeex xeex bi ngay xeex ci politique xeex bi ngay xeex ci politique mooy nga fexe ba askan wi estimé la te loolu lu ko waral mooy loo am bokk ko askan wi man politique boobu laa génne dès le xam nga mm, euh, bul bëgg dëkk ba dem fa bu la bëgg dëkk ba dem bëggee demal te ji lépp temps bi ngay jël di xeex ak ay di attaquer ay kii jàmbur ak convoi jàmbur ak temble def ko si askan wi loolu nga jël di jeunes yooyu nga développé fekkee loolu am na laa wax fekkee am na def ko ci askan wi askan wi dina ànd yow c'est ça la politique politique dafa war a rafet politique noble moo ko war a def sax parce que politique nitu àjjana sax moo ko war a def nitu àjjana dëgg-dëgg parce que politique mooy la politique c'est l'art de bien-être de lépp loo xam ne def lu baax la politique la lépp loo xam ne wax lu baax la politique politicien noonu nga war a mel mais politicien Sénégal rek la war a wax kat wala wax lu bon wala yàq kat non non non ay xeex xuloo ñun suñ politique di loolu politique de développement la ñu wax kii di développement du social loolu nekk ci askan wi rek nekk ci gars yi nekk ci franchement ci euh, état nag la nga fexe bu ñu reyee nag bi sa gox nga fexe ba centré seen bopp ci nag bi moo gën animosité moo gën xeex moo gën saaga moo gën ay yàq yàqal ay du yem ci bopp borom. ay du yem ci bopp borom tey jii gis nga tey loolu lépp xoolal du mujjee tey wóor na ma ñoom ñëpp ñu ngi regretté la am. ñoom ñëpp deux parties yëpp ñu ngi regretté lu am te si am na moor xam nga ni di nga bañ nit di ko saaga bu dee rek nga yërëm ko. ñu ngi tey jeexul tey ana mu jeex na kon jarul woon loolu nañ nañ politique xam ne Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar ñoo ko bokk ku nekk fare fi nga far te teewul ñu waxante lu baax teewul jarul ñuy sos jarul ñuy wax lu ñaaw jarul ñuy wax lu bon politique du loolu politique du sosol nit wala wax nit ko pour jëm koo éliminer pour jëm koo euh, yàqal di ko waxal lu bon di ko wax lu kii nañ jéem a wax lu baax c'est ça la politique. muy si jeexantal waaye maa ngi sant yàlla baax di julliwaat ci Seydina Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam di uh, nuyu sama mbootaay yëpp à Kaolack tout le monde sait que Kaolack c'est moi di nuyu tous les mouvements di nuyu association yi franchement. képp koo xam ne yaa ngi kaw rek bëgg di sofee Ousmane Nawel parce que ñun dépassé nañ sax Kaolack ba fépp ba Europe ba Amérique ba Asie dañ fay tukki ñëpp daañu Ousmane Nawel liggéey bi ngay liggéey rafet na di nuy encore di delloo jukkal suma mentor monsieur le ministre Diène Farba Sarr ci yar gi ñu yar ak dalal gi ñu dalal ba nga xam ne franchement dara mënuñoo impressionné ci àdduna dara mënuñoo ërtal ba ñu wax lu ñaaw wala def lu ñaaw wax dëgg yàlla maa ngi wax mbooloo yépp ne leen ma xaar maa ngi waajal benn meeting bu rëy meeting bi xam ne déclaration déclaration bu rëy rëy boo xam war naa ko ci def ne leen man position bi ma jël maa ngi ko jël taxaw te te nag jaral na ma lu ne ci àdduna mënuma liggéey pendant six ans di ko liggéeyal président Macky Sall liggéey boo xam ne kaw la yëpp c'est moi tout le monde la sait lépp loo def génne si Ousmane Nawel da ngaa def la neex waaye nag boo ko defee mën nga dóor sa loxo ci ëkk parce que la moo def loolu du man nag yàgg naa ko wax mosul naa ko ci benn émission ne Kaolack c'est moi maa yor caabi Kaolack mais ba may wax dañoo foogoon damay wax rek mais billaahi lazi laa ilaaha huwa fu ku bëgg victoire ku bëgg victoire biir Kaolack te Ousmane Noël bokku ci victoire doo ko am wasalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi lay jaajëfal.